ok gay damay ñëw ci ndaw si ci ndaw si lay ñëw a ah, muy Khadija ñu gën koo xam ci Tina Khadija ñu gën koo xam ci Tina ci moom lay ñëw ma ne ko ci ndaw si lay ñëw Khadija ñu gën koo xam ci Tina waaw déglu leen bu baax ma wax leen ah déglu leen bu baax ma wax leen xam nga Sénégal dafa neex dafa neex quoi moom nee Bambaly sekk moom moo ko ëmbal après trois ans quatre ans ci li mu def interview nee na Bambaly Seck moom moo ko kat moom moo ko ëmbal ah moom moo ko ëmbal moom moo ko kat tey nag laa leen di leeral lépp jël bii di Khadija ñu gën koo xam ci Tina caga international la bu leen ma wax naan ma Adamo day xawi sutura nangam nangam ko ku génn ci télé bi yaa xawi sa sutura man bàyyi woon naa kaa sama yoon wu ci mais bu ma Sénégalais yi wóoloo ba ma dossier bi boss day néegri yaa ko war a traité mais maa ko war a traité parce que xam nañ ni ma mel man lu ma wax dama am fu ma koy teg moo tax ñu naan ma dossier bi yaa ko war a traité Khadija mi ñu koy woowee Tina caga international la almadi la nekk di mandi artistes yi ko katt yépp tey di ngeen ko dégg ñu bëri katt nan ko contacté naa ko woo naa yaayam téléphone vocal naa ko dinaa leen tegal vocal yi lépp ci preuve lay dox dinaa leen tegal vocalam yi moom tegal leen ay vocal yaayam man lu may wax day leer caga la caga bu mag ñi ko katt bari nan xam nga lan moo yàq senegal mooy naaféq gi ngeen katt tuunu ndeyam nekkee ngeen war a bàyyi lan mooy ndeyu ay bàmbaali na assumé bu dee moo ko kat waxuma la kat na ko wala kat ko de mais xam ngeen lan mooy wax ji Sénégal ci boppam jigéen ñi ñoo bëgg lu yomb lan mooy ndeyu yow sama naturel xaaral ma kat ndeyi sama yére bi nii quoi ndax bu ma commencé tàng rek dinaa teppi tuunu ndeyu life bi lan mooy ndayu yow liggéeyoo liggéeyoo da jaw ndayam defoo ko xëyoo gontoo sava naturel bëgg nga teg sava naturel bu yegg si ba sa xottu taat bi iPhone bu bees bu génn yaa koy njëkk am oto bu bees yaa koy njëkk a am mais kër appartement bu luxe da koy da koy xëccoo gerefaas o bàyyi woo dara lu katt ndayam génn nga ne yow yaa koy njëkk a lëfal ndayu am te doo liggéey doo fobeere doo liggéey doo jaay màdd du kew du dànq du mbuusu ndox du socc du gura loolu foo jaar kat ndeyam ubbi sa data bi ñu kat la wala nga wantir sa lëf doog a tekki mun ta nekk impossible xam nga ñii li leen bëgg siiw jërul ngay siiw pour joxe sa lëf wax naa ko yaayam siiw taxul ngay joxe sa data xaalis bu tax nga joxe sa lëf xam nga ne bàmbaali sekk bu doonoon sagaru surga di bay ay ñebbe pom dànq soccu euh, pitikola euh, gura euh, pompali muus mandarin xam nga ne kii du génn naan Bambaly moo ma ëmbal def na trois cent nangam non mais xam nan Bambaly Seck am na tuuti carrière siiw na nit ñi xam nañ ko moo tax ñu génn ku ne di yaatal sa gémmiñ naan Bambaly Seck moo ma kat moom moo ma nangam nangam bu doon sagaru uude day ëwi wala ay ndomba yu ni daanoo yësi gis nga bu fekkoon Bambaly Seck ay mat laa lay defal bu doon maçon di peinture kenn du génn naan Bambaly Seck moo ma ëmbal du moom du yaayam parce que rus nañ ko xam nga lan mooy sama problème ak sénégalais yi sénégalais yi danoo kattul tuunu ndeyam ñeme dëgg man boss day néegri l'homme qui n'a rien jamais perdu de sa valeur la femme bien préparée sponsorisée par sa famille maay katt ndeyam wax lu leer Sénégal te kenn du ko dindi man lu ma leen wax am na fu ma ko teg déggoo leen ma de lu ma leen wax am na fu ma ko teg caga international a ngi nii mbay ku caa moo ko mujj a mbay ku caa kat na ko ma Dieng katt na ko Maas kat na ko wuyu ma am na ñoo xam ne bëgguma tudd seeni tur parce que sama ay xarit lan te danoo sës si man barki Serigne Babacar si ñi ko katt bari nan dama ne la Mbay Kuccaa katt na ko Pama Dieng kat na ko Maas kat na ko ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni bu ma tuddoon seen tur Sénégal yëngu mais samay waay lan sama ay xarit lan man mii di wax ak yéen artistes yëpp artistes yu bëri kattan booy bi artistes yu bëri kattan booy bi kii amul kilifa. Khadija ñu koy woowee Tida amul kilifa te man ku ci def sa njaaxum ba toog da ngay jël sa yaay muur ndayam ba mu daj muy mel ne naar bu jóge Dubaay toog naan sama doom de moom dafa am sante dafa baax mu sa kattante du def lu bon xam ko dama bëgg na yaa mën a teppi seen lëfal ndey ku ci jaaxle woo sa yaay wala sa papa mais yéen toju leen seen lëfal ndey dama ne la ngeen nekk ay nit Bambaali Sekk bu nekkoon sagaru uude ñawkatu dàll di defar ay ndomb yu nii daanoo yësi wala muy ngacc ay foos ku day mu ngaccal la foosam ah wala muy jaay ay guro bi pombiteer nawe pataas ah di napp ay jën dekk gén ndar gi billaahi du nu génne ne moo ko ëppal mukk ci àdduna bi xam ngeen li ma leen di wax defoo dama ne la am doomu faramaarin du noonu de nekkul ne da bëgg faramaarin bi bëgg cee bokk rek da ngay tuumaal ko bokk faramaarin doomu faramaarin da ngay xaar temp temp mu ñëw fekk si la lépp ci yiw ak temps lan koy teg mais dégg faramaarin gaa ngi toj lañ waalaay nga yëngal adduna bi Genève ngay toj Bercy ngay toj ah Canada mi ngi toj Amérique di toj waalaay ngay yëngal ci seet garaat yaar mu ngi koy màbbal nga ne waaw kay bal ma dugg ci fami faramaarin bi ñoo jur sama doom yow yaa mën a tepp sa lëfal ndey ñaata nit la kat ñaata nit kat eh, wuy leen ma bu leen fi nekk nag naan ma waaw Adama dafa bon day xawi sutura nanga non moom moo génn ci tele bi ne dana ko kat ëmbal ko après door bu yàgg muy doog a génn kon moom moo xawi suturaam bu Sénégal yi xamee tey ne mbay ku càkkat na la Pama Dieng ak Maas ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne bëgguma leen tudd ndax samay xarit lan yaa xawi sa sutura Pama nekk leen ay nit dama ne ngeen nekk ay nit yeewoo ñii dañuy dof doflu xale bii amul kilifa taxawàllukat bu teppituunu ndeyam a ngi nii amul kilifa amul kilifa yéen ndaw nday yéen di ngeen a bëgg lu yomb waay en tant que jigéen ngay joxe sa lëf pour siiw joxe sa lëf pour xaalis kan moo boo xam nga ne ba yow Bambaly Seck bu nekkoon maçon simple maçon da nga génn taxaw ci télé yi Dakar Buzz Team la ak Seneweb nga naan moo ma ëmbel fee la ma kattee durée bi gàtt yan def ma deq 200000 nangam nangam xam nga ne Bambaly Seck am na tuuti carrière toq bës yore na ko bu bëriwul sax yor na toq bës moo tax nga jiñ ko ëmb bi bu doon ab uude buy ñawi daal la xam nga ne kenn du la gis ci télé bi yow yaay naa fekk waay man mënumaa bokk ak sénégalais yi ndax dëgg laay wax ma ne yi mënumaa bokk ak ñoom ndax ñoom du ñu wax dëgg te man waxkatu dëgg laa ngeen naan ma dama bon jigéen la suturaal ko man awma lu may suturaal di maye leen fleur ba bëgg naa balaa live bee jeex mu kat nday mat 100 pour cent fleur yi leen ko fleur bi ngeen gis ci kaw kat li ndayum envoyé ko waa TikTok wala ma arrêté nday live bi maye leen ndayi fleur yi mu egg 100 pour cent complète gis ngeen ci kaw nay ngeen torop sarab ndayi li waay joxe leen fleur yi wala ma arrêté na valeur yi naaw merci études yi wa merci Ndiasse Thiam Ndiasse merci beaucoup léegi nag waaw merci waaw waaw merci beaucoup quatre-vingt pour cent man de bu nee për rek ma tiit merci beaucoup merci beaucoup jaajëf attendre waaw nii la merci beaucoup waaw nii la nii laa ko bëggee ah merci beaucoup léegi nag gars yi dama leen di tegal audio yi nga xamante si nii moom laa vocal gel bi ak audio yi ma tontu ak yaayam duma ci bàyyi dara ngeen déglu bu baax a baax a baax mais bala maa teg audio yi dama am lu ma leen di leeralal ci gel bi gis nga kii di Khadija ñu koy woowee Tina ànd na ak Bambaali Seck ak yaayu Bambaali ñu dem test tes test DNA ba xam ñu xool ndax doom ji Bambaly sekk moo ko jur wala juru ko mu génn ñu ne doom ji Bambaly sekk juru ko ba tey loolu déggoo mu wax ko yaayu Bambaly Seck ànd na ak Tida mii di Khadija dem defi test DNA ñu ne ko Bambaly sekk jurul doom ji génnul wax ko beneen bi ci topp mooy kii di Tida ñu koy xamee ci Khadija dafa ëmbaat dafa ëmb ëmb bu ndaw moom ci boppam ëmbaat na te génnul wax ko daa biiraat ëmbalaat nan ko maanaam moom dafa bëgg a profitoo pour bu doom ji bu nee bàmbaale ko sek beneen bi bu juddoo ñu xam fur ko kii déggoo li ma la dafa ëmbaat jamono ji yaayu bàmbaali ànd na ak yaayam moom ak xale bu jigéen bi ñu dem hôpital def test DNA ñu ne ko doom ji bàmbaali sekk juru ko waaw ADN waaw ADN kon waaw ADN man mënuma ko wax DNA wala ADN rek ñoom def nan test yaayu bàmbaali sekk moom moo ànd ak xale bu jigéen bi ak yaayam ñu dem defi test ñu ne ko Bambaly sekk jurul doom ji génnul wax ko eh beneen bi ci tegu mooy gel bi dafa ëmb nii muy defee interview nii daa biir gel bi ci boppam daa ëmb dañ koo ambal dama ne vocal yi ma wax ak yaay ji wuyu leen ma vocal yi ma wax ak yaay ji vocal yi ma wax ak yaay ji ak vocal bi ma ko vocal dinaa leen ko tegal ngeen dégg ko attendre leen bu baax yaayam saaga na ma ndey lu ne wax na ma ko mais teewul dëgg bi da koy dégg duma leen ci bàyyil benn vocal lépp laa leen di tegal toog leen ngeen déglu déglu leen yi bu baax ñu teewlu vocal yi. Eh, nu mu tuddati Tida man la Adamo yow tey dinaa def live na nga suivre live bu baax parce que yéen moom dangeen ngeen di bëgg a yeb nit ñi quoi après nga leeral affaire yi man dinaa wax ak Bambaly. ça va Adamo ça va ça man la Tida nga ne dinga dinga def live pour leeral affaire yi affaire yi kay jarul leeral leer na ba noppi nit ñi dégg nañ ko. man kay li ma bëgg mooy Bambaly ci boppam mu ñëw reconnaître doomam defaral doomam ay ay kayit loolu léegi laa bëgg bu reconnaître doomam soxla ma daraam loo xam ne takk na ci moom moom sa bëggut mu ko gis ci àdduna mais nañoo rek reconnaître doomam loolu nga si laa soxla. salaamaaleykum na nga def Adama yaa ngi si jàmm bu baax man la yaayu Tuuda dafa liir léegi sa message won ma ko bu dee da ngay leeral nag leeralal. waaye bu subaa man mi di yaayu tiire di ndayu mbilli ki jur sama doom jur ko fa ma ko war a juree mu teg ko lii mu ko teg nii ba pare di ko dawloo ni safa ak maro wër di yàq deram man dinaa génn jàkkaarloog Sénégal wax lu leer naa ñu lu mel ni mi ji waaw ah, kay yow sa doom ji day taxawaalu sa doom ji di Khadija nekkul ne ba mbaamaale rek la seqal ñi mu seqal doo bari ci boppam yaa ngi dégg Khadija mi yow meer yow soo amee sa doom da nga koy yar nga teg ko fu leer yaa ngi dégg bu indee dara ci kër gi nga laaj ko foo ko jëlee yaa ngi dégg Khadija mi ànd na ak yaayu Bambali ak Bambali sekk ñu dem test DNA yaa ngi dégg ñu ne ko Bambali jurul doom ji léegi nag moom muy wër kuy papay doom ji te nii muy waxee ak yow nii moom dafa ëmbaat nii muy waxee ak yow nii dafa ëmbaat léegi nag mu bëgg a génn takkal doom jële bàmbaali su ko defee bi mu juraat ñu ne bàmbaali nangam sa doom ñi ko ñi jaar ci moom moo bëri ñi jaar sa kaw doom moom moo bëri sama yaay ñi jaar sa kaw doom ñoo bëri yaa ngi dégg man information yi ma la maa la ko gën a xam foofu te mën naa laa tuddal ay tur combat man Adama Mbow man yaay ci de man maay wax ak yow gis nga li ngay wax nii da ngay wax lu la neex te barke xaadimul xaddim mi ma yaakaar yow yàlla na la sama àq dal parce que nag yow sa wax sax métti ma parce yàq yàq nga toog di yàq dara doomu jàmm yow lii mooy sa métier loolu moo nekk ci sa dara waaye naa la xamal ñaar man ndaw laa sant te nga ne nag yow man maa la gese yow teeral nga di nga tàkk te doo xam lu lay taal gis nga ci dem yi man maa ko juuf sama doom la yaa ngi may dégg bu dee boo nee dafa ëmb da ngay duul ëmbul yow ngay duurkat dooma raam bi nga doon yoo xam nga ni man faalew ma la lu leer laa am ci lu ma lay wax maa ngi toog fii nag yëmbal di ko tàggasante te bu subaa ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dinaa jàkkaarloog Sénégal yëpp wax ñu dégg ma dooma raam si sa doom ji cagala yow ñoom ay mass Dakar live ay ay kii ay mbay ku caa ay paama jee ñeen ñoo du ma tudd tur ndax samay xare lan ñëpp ko kat ñëpp nga bëgg a taxal bàmbaale di wër kii test de ànd bi waxoo ci ëmb bi mu ëmb nii waxoo ci maire maa la gën a xam li xew Dakar xam sa doom li muy def nekkal nit Adama ngay waxal dofoo man lu ma la wax am na maa leen gën man xam naa leen bu baax. Adama tiida moo wax waaye man waxloo ma tiida ndax yàlla dafa wax. ndax ku xool bébé jaara xam ni bàmbaali mooy baayam waaye te yow dooma raam nga ndax dooma raam a tax nga gis dëgg dëgg teg ci sa tànk yow booy ne tiida dafa ëmb dangay ngay duur waxoo dëgg yow doomu cott ndayam bi nga doon yow nee naa la ci man nga teerali ci man yaayu tiida bi nga xam te ni innocente la doxul waxul demul dikk ci moom nga teerali déggoo ma de yow imbécile bu bon bi nga doon da ngay maire li may wax xam naa ko maire man ngay waxal de man maa maîtriser Dakar toog fii xam lépp ci di sa booy sa doom ji di man di def lu ko neex ñu bëri tëddee ko dégg nga ñi ma la limal danoo tuuti de mën naa laa limal ñeneen mais samay xarit lan du ma leen tudd yow xanaa xamoo aadama man du ma fen sa doom ji ànd na ak yaayu bambali dem defi test DN DNA xaw ma nu mu tudd ñu ne ko doom ji bambali sekk juru ko léegi nag muy wër moom kan mooy jur doomam nii may waxee yow sa doom dafa amul lu tax waxoo ma nii may waxee yow nii nii bu leen nekk leen ay gen baa bàyyi seen dof-doflu bi baax na ba guddi. Adama déggoo ma de gis nga li ngay wax nii man frégew ma ba ñàkk ba yow nawloo ma la man duma lii say vocal du duma du ma du déglu say wax parce que yow doo nit waaye dinaa la xamal ñaar xamalaat la ñaar gis nga sama doom ji aha kay caga yi ak ñoo bëri ci dëkk bi dëkk bi Sénégal fii ay caga du nga fi nekk bu la neexee da nga taxaw ne moom caga la waaye ndayam du caga amul mbokk caga kon aada waxal lu la neex sama doom ji ca kaw ca kanam ci lu baax béeboo ne ko téeméeri góor tëddee déggoo ma de béeboo ne ko junniy góor tëddee déggoo ma de mais du tere man dama koy doom parce sama doom ne man maa ko sukk jur kattal sa ndey fële yow mi gis dëgg nga dëgg gi sataan ngay duul naan moom dafa ëmb xanaa yow yaa ko biiral yow yaa mën a duul yow ku mën a duul nga yow aadama kuy wër ku duul ku mën a duul na ba egsi ci dina teeraat du nga ñu dafa biir tooga ba xam di nga gisaat doom jurkatu xaraamata njaay bi nga doon sa lëfal ndey saa yoo woo yow yaay dooma raam du ma du ma yow dooma doon du ma ci génn di ko wax parce que yow bàyyi woo Macky Sall bàyyi woo ministre yi bàyyi woo si bàyyi woo woo kenn yow nit ñi baax ñu nekk Sénégal ñëpp ba woo kenn yow ba woo sa ndey ba woo sa ba woo ba woo sëriñ ba woo nit ñu baax ñi ba woo kenn kon nag bu la tiida yi nga xam ne benn sagaroon yi dong la di dox ci kaw àdduna yoo xam nga ni war nga war ngaa mën a taxaw di wax ci moom la ñaaw ndax ku bawul sa ndey bawul sa baay bawoo sëriñ bawoo kenn doo bàyyi xale bu ndaw bi nga xamante ni xamul dara xëy na nattu àddina rek moo ko dal nga profité ci di duur ñu nekk ci sa ginnaaw di la poussé nga taxe ba am numéro am vocal ko di am looy wax sa dëjëw nday saa yoo yeewoo man naa la ko wax man yaay kii def aadama bu ko saa yoo yeewoo ba teg sa tànk rek xamal ni sa cottu nday nga ko teg man maa la wax loolu saa yoo jëlee kudd di lekk rek xamal ni sa dëjëw nday ngay lekk yow aadama ñemewu leen dëgg ñemewoo dëgg sa doom ñi ko katt ñëpp mën naa la ko limal benn par benn ëmb bu bees bi mu ëmb nii doo ci wax beneen bi ci tegu mooy doo wax ci test DNA bi nga xam ne nii ànd ko mu ko ak yaayu bàmbaale ak bàmbaale sekk da ngeen yaakaar ne dossier bi li waxal yow toogal di xaar ba guddi rek meer man du la tontooti du ma waxaat ak yow li tax mu lay jox téléphone bi ngay wax moo ko xam xam na li tax mu lay mu lay wax loo di la pousser parce que ku jaaxle sa yaay ngay ngay Adama yaa mën a duul te rafet duul yow yaa mën yow yaa jongama ay duul yow yow nekkati duul kat original yaay bàmbaali may ma yaay bàmbaali man maa dem ba këram te lam ma wax bu subaa dinaa toog ci télé bi wax ko déggoo ma de gis nga yaay bàmbaali lam ma wax dinaa toog ci télé bi wax ko su boobaa dina xam ne yow duul kat nga yow yaa mën a duul te mën a fen mu naan test bi ànd nga ak bàmbaali ak yaay bàmbaali dem defi ko say duul dëng na torop duul day jub yow da nga doon yooru waaye yab nga Adama heure boo yeewoo bay boros xamal ni sa kooy baay ngay borosoo sama kàddu gu mujj nag laa lay jox yow Adama man jéeg bi nga xam ne sëy na ñaar fukki at ak ñaar mësta tas mësta fay mooy wax ak yow man jéeg bi nga xam ne maa jur sama doom ji yar ko ba mu màgg mosumaa wax mu ak yow jikko koy def ci doomu Adama jikko bu ko bu ko yàlla moo ñaari man bëgg na Adama na ko million sénégalais yëpp kat sama doom la maa ko jur sa lëfal nday saa yoo yeewoo déggoo ma ni di mooy sama kàddu gu mujj nag man ak yow sa digg dafa nday saa yoo yeewoo yow Adama neel waaw booy duul da ngay duul duul yu jub say duul dara jongama wu ci teel wax dëgg. jeeg bi nga xam ne sëy na ñaar fukki at ak ñaar jur doom boo xam ne ni day ca day cagala di màndi bëgg lu yomb parce que xaalis bi mu lay jox a tax doo leen wax seen waajur yi doo leen wax seen doom yi dëgg parce que day bëgg sava naturel du liggéey bëgg a siiw ah kenn du ko siiw kenn du ko forcer. du siiw du nekkul ne da ngay joxe sa lëf pour siiw nekkul ne da ngay joxe sa lëf pour am sava naturel nekkul ne da ngay joxe sa lëf pour euh, am iPhone nekkul ne da ngay joxe joxe sa data. pour nit ñi ràññee la wala nga am loo jox sa yaay wala lu muy lekk kii cagala ñi ko katt bari nan test bi waxoo ci ëmb bu bees bi waxoo ci bàyyi ba guddi ma leeral lépp mën na yimbi ligi nga nekk fi naan ay waaw dinaa génne ci télé yi ku ci def sa njaaxum daal jigéen jël jël sa yaay musur ko muur ko mel ne kañ gu jóge Mali toog naan waa sama doom dafa baax cagatoom bi nangam nangam mus sa cagatu yaayam nangam li nekk ci dossier bi lépp xam nañ ko doo man mii du ma la vocale te guddi jotul merci beaucoup. ñaar nag dinaa la ko waxal dina sa message yi xam nga yi ngay woo ñuy tiit man bokk ma ci man jeeg bi nga xam ne sëy na ñaar ki at ak ñett te mës ta tas mës ta mës ta yanu nabal fay tiire mu ngi nii toog sama kër maa ko mu ngi fii toog maa ko kanam ginnaaw ko xam nga xeex bi dama ne woon duma ci dugg déggoo ma de dama ne woon du ma ci dugg ndax man bambaal dama koo bàyyi ak yàlla suñu borom ndax sama sët bi mu jur ba pare lànk ñu jur ko dama ko bàyyi yàlla suñu borom sama doom ba muy ñëw di def di def euh, kii bi sax man yëguma ko waaye nag comme yow yee yaay yow yaay yow yaay yow yaay pëli pëli jeegu ñay yow yow yaay solo ku nekk mbubu avocat ci réew mi Sénégal fii taxaw di wax lu ne bàyyi woo président bàyyi woo sëriñ si bàyyi woo kilifa yi bàyyi woo sa ndey bàyyi woo sa baay bàyyi woo kenn kon sagaru nit bii du ma dinaa la xamal ñaar neen li ma la wax rek na ko junni sénégalais tëdde waaye sama doom la te ken gënu ko ndey kenn gënu ko baay doomaraam bi nga doon yow bi nga xam ne yàlla dalaa natt nattoowu la lu dul taxaw di wax nit ñi lu ñaaw nattoowu la lu dul taxaw di saaga nit ñi nattoowu la lu dul taxaw di toroxal nit ñi waaye di xam ne mënoo maa toroxal yow yàlla na sa koo yi wadd ci mbedd xaw ma foo mën di nekk mais na nga dox ba ci yàgg sa dambali ne ba tuuti suuf wadd maa ngi moom rek waaw kay foofu nga laal nag foofu neex na ma nit ku bon kee nit ku nit nit nit nit ku tekkiwul dara nitu safara gi nit ki yàlla lakk muy dox di dund foofu nag moom dama fay dugg ak yow fi nga dugg noonu ni man daf may jox xaalis dima di ma fayal ndox di ma fayal courant duul nga ba def ko ci bool jël sa fursa di ko tibb di ko lekk man ku ma xam-xam ni liggéey la ma xamee déggoo ma de fii de musumaa fayal ndox musumaa fayal courant musumaa yoral dépense déggoo ma de tii de mii Sénégalais yëpp man ñi ma dëkkal ak ñëpp xam nañ ñi man tii de mii fukki dërëm moom di dul ko ci samay loxo lu ma am man maa ko amal sama bopp ak bàyyam bële déggoo ma de yow doo ma ràmp ak sa cottu nday li may wax rek sa sos yaa ngi nii li tax man nawloo ma la parce lii ngay wax nii dafa du ci dëgg ay duul la man say duul dama koo jël paqueté ko ba mu jekk ma teg ko ne la parce que yow duul nga yàqatu der nga waaye sa bés dana ñëw yow sa bés dana ñëw digg Sénégal njaay gii ba ñëpp teg ci seen bët man wax lii soo ñëwee daf may fayal ndox di ma fayal courant duul nga fii de joxuma ma lekk contrôlé ma maa yëkkati sama xaalis di ko jox li may wax nii ñi ma xam xam nañ ki dara li may wax nii ñi ma nekkal xam nañ ci dara te li ma wax dangay da ngay duul tegaw ko fenn Adama maanaam ci gàttal sa digg la fal nday saa yoo ok léegi loolu mooy vocalu maire bi léegi dañuy ñëw ci vocalu gaayen bi nga xamante si nii beneen grand bi la. Charles naa la man la jaraaf jaraaf Farmaren Euh, si kaw Tida bi laa la bëgg a laa la bëgg a expliquer wax dara dara du si dëgg dara du si dëgg man staff Bambaly Seck laa nekk Bambaly maa ngi si nabal te Tida xam naa ko bu baax. Mixa fi la doon fréquenté di jaay boppam xam naa ko bu baax di naan volé di saa naan naan sangara xam naa ko bu baax xam naa ko bu baax ak dañ ànd tam soirée muy dem. xam naa ko bu baax a baax a baax soo ko woowee laaj ma xam nga jaraaf jaraaf seen xam na ma day wax xam na ma saa ngi comprendre Tida lu muy wax du dara dara du si dara dara dara du si dëgg bu ngeen nga dugal ma ci live bi après. noo yow du ma a dugal léegi dañuy déglu vocalu Mbaye Kouthia. Mbaye Kouthia fan la nekkoon fii. nag am na lu de. ñam nga ñam nga booy bi de. waaw noonu ko mbay moom gëree la ñëpp la kat te du ko mbay moom mën naa kat yu bëri. ah baana kon booy bi kon moom day tuumaal nit ñi rek kon moom jaga ah, baax na ok. xaaral ci kanam yow kay katt nga ko xam nga ko ci kanam waaw. kii mooy Mbaye Kouthia moom moo mujj katt booy bi Mbaye Kouthia mi ngeen di gis muy def émission mi ngi nii moom moo ko mujj a katt moom mujj a katt tinaa Mbaye Kouthia dégg ngeen ko Mbaye Kouthia ngi nii moo ko mujj a katt Mbaye Kouthia dégg ngeen ko damaa bañ ba dama koo jël Mbaye Kouthia moo ko moom. am na Mbaye Kouthia sax moo ma jox numéro am Mbaye Kouthia moo ma jox numéro booy bi moo ko mujj a katt Mbaye Kouthia ko mujj a katt ñam nga ñam nga ji booy bi de. waaw noonu la yow. mbay ku caa moo ko mujj a kat la ñëpp la kat. xoolal mbay ku caa moo ko mujj a kat ñëpp ko kat. artistes yi ko kat xanaa xamoo am na ñoo xam ne sama nit lan man samay nit lan moo tax tudduma leen sama ay xarit lan moo tax man tudduma leen mais kon dinaa leen tegal liste ñi ko kat ñëpp kii yaay ji. moo ko bàyyi ci li mu nekkee man yaay ji saaga yi ma saaga ak li ma loolu amul problème loolu yàgg naa koo dégg mais man damay bëgg chaque jour rek ñoom ñuy dégg dëgg ci seen doom yi man duma ma bay baylal doom xam nga lan mooy bay baylal sa dom sa doom ñëw indi iPhone bu bees ah wala savon naturel wala yére bu bees wala mu jox la xaalis bu bari doo ko laaj fan la ko jëlee liggéeyul amul liggéey kenn engagé wu ko jaayul deful dara mu yor xaalis ne yaay jàppal ci lii xanaa di ko laaj foo ko jëlee xanaa di ko laaj fan nga ko jëlee. xanaa di nga laaj sa doom ji fan nga jële xaalis bii kat moo la ko jox dafa am loo xamante ni losigul xale bu jigéen bi ñëpp a ko kat mi ngi nii Xadija bi ñëpp a ko kat billaahi wallaahi wataalaahi am na loo xamante si nii bu ma ko rusul woon billaahi dinaa la tuddal tur yoo xamante nii day weesu Pama Dieng day weesu Mbaye Koutia day weesu Maas billaahi tuddal la ñu siiw ñoo xam ne katt nañ ko billaahi mais ñooñu sama ay xarit lan bu ma leen tuddee rek dina ma woo sama ay nit sama ay xarit nag ñëpp ko kat ñëpp xam nga la la nekkoo bi fële euh, almadi mandi naan ci mbedd almadi yi day taxawal yaay jaay gi yaay ji waxul lépp de nee bu subaa dina génn ci tale yi leeralaat li ma leen wax rek li ma leen wax rek gis ngeen Bambaala sekk bu nekkoon sagaru maçon wala koo xam ne nii am uude la ah wala koo xamante nii day jaay ay socc ak buusu ndox billaahi du ñu génn ne moo ko ëmbal mais xam na ne am na toq bës moo tax ñu génne naan ay waaw Bambaala ñi ko katt ñoo bëri ñi xale bu jigéen bi dafa bëri eh du man maa xaawi suturaam de déedéet moom moo xaawi suturaam moom moom moo xaawi suturaam moom moo génn mu def interview boppam ne dañ koo ëmbal bay Bambaali sekk di jël koo kooyam di ko dugal ci data bi muy encaissé buy neex génnul woon de naan bàmbaali sekk kattanama tey lan kattante ah déedéet ba muy neex ñoom ñaar la mu bàyyi ba mu am doom ba doom ji màgg bu génn ci télé yi woo média yi parce que Bambaly sekk daa siiw boo woowee média yi ñëpp ay ñëw pour di côté interview mu ne waaw da koo ëmbal bañ ko nangam nangam au début musta dafa man mu guma ko naafiq bëgg ngeen di wax dëgg man damaa bëgg bu ngeen di ànd ak aadama ngeen di xam dëgg mu guma ko naafiq ba nga koy katt kenn fekkewu ko ba koy bi di dugg ci biir data bi kenn fekkewu ko léegi nag ba mu amee problème génn woo média yi ñii di ay caga ñii ay caga yu ubbi seen lëfal nday la ñii yaayam boo ko déggee rek da ngay xam ne kooba la maire bi ak saagaam yi boo ko déggee da ngay xam ne yaay ji rek caga la parce que ku yaayam caga mu jur doomu caga soo leen dégloo fa koole yaay bi da ngeen di xam ne yaay ji kooba la soo leen dégloo yaay ji da ngeen xam ne yaayam caga la kii kooba la vocal yi ma leen tegal boo ko déggee rek da ngay xam ne Kooba boo leen dégloo vocal yi rek da ngeen di xam ne yaay ji Kooba la yi